Magal TV mbokk internet ñi ngi fi ci neuvième édition Ladu Met bu Mbour fi ci bergerie euh Siraxatu ma taxaw ak kilifa ko xam nak ñep xam ngeen ci élevage waaye moom moo may wax tay moom mooy kan ak fan moy bergerie Siraxatu kilifa ci siyaar wa Sénégal élevage ñu ngi leen nuyu di siyaar ñep di bëgg diaspora bi yëpp Sénégal TV Sénégal élevage mom la tuddee gaay nek ci akhlo bi euh ok man la gaay gaynde ma leen nuyu di leen siyaar leen jox seen wàcc waaye di siyaar ñep tay ma ngi Siraxatu bergerie Siraxatu moom mooy ban bergerie ak loo mën a wax ci bergerie Siraxatu kañ la commencé liggéey ak fa la toog bergerie Siraxatu nag bi mu commencé liggéey yàgg na ñun dañoo presque màgg ci bergerie bi fekk lépp sotti nekk ci xar yi ñu fekk fa produit yu doy waar ñu continuer ñoom ci liggéey bi di ko améliorer ba keroog muy agsi fii nga tey. tey euh, nga nga nga nga limal ma quelques mois yoo xam ne rek jaar nañ Siraxatu balaa ñuy ñëw présenté ma fi lu fi nekk ba pare euh, xam naa tey ki nga xam ne moo fa nekk muy Picasso tamit nga xam moom mooy kan. waaw maali jaaru siraaxatu bari na dañu commencé ci mujj rek lu mel ne Muxsin Jamil Muxsin Junior Zeynu ba si Picasso mi tax ñu taxaw fii tey pour wax ci ay production macha allah. ñaar moo doon wax tey Muxsin ak euh, Picasso ñoom ñooy ñan noo ma koy tegtale. waaw Muxsin ak Picasso kii magistrat la kii Saalum Saalum la boo toppee seen i seen i maam fa ñuy bokk boo toppee seen i deret fa ñuy bokkee ca maam ya lay doon soo gisee siraaxatu di liggéey si. ay mal différents euh, xar bu si nek dafa am sa côté sa fort xar bu si nekk da nga am sa fort ñi dinañ njool gudd rëy duñu am critère ñi dinañ njool rëy duñu gudd ñi dinañ gudd rëy duñu njool ñi dinañ gudd njool sew donc kon xar bu si nekk dafa am lo am sa morom manqué ko mom ngay uti fenen ñeu duggal ko ci pour connaître sa parce que élevage la dum continuité la nekatu luñu ñu caractér nekkagul lu caractériser donc comme nekkagul lu ñu caractériser liggéey la boo xamante ni continuité la chaque jour dañ ko war a améliorer pour muy yokk par étape bu ñu demee ba xar ñu koy teg toise hauteur a garab muy def cent vingt point nangam boo xoolee trois ans si ginnaaw xar amul cent dix kon donc ñu ngi liggéey waaw looloo waral différence su Mali différence tey boobu la wax euh, ñoom ñaar ku ci nekk fan la jógee nan la ñuy ci bergerie bi ba trajectoire seen Mali yooyu. waaw siraaxatu bergerie boo xamante ne nii la euh, xar bu ñu am sew yaakaar dañuy wuti sa doom teg. xar bu ñu am seew yaakaar dañuy ut sa doom teg parce que tey boo fa duggee di nga fa fekk deretu xar yi ñuy tudd majeure partie bi di fa fekk seen femelle yi nekk yi gën a nekk en vogue yi gën a nekk gën a am qualité di nga fa fekk seen ay produits looloo tax ñu indi tey Muxsin téye ko liggéey ko liggéey si def si base femelle jox ko éleveur bu mag muy xam sa bu bari ñi mu dem liggéey ci leen ñu ñu kepp ko dem indi Picasso teg pour tegaat ko ci ay doomu Muxsin pour am leneen lu ñu dolli si ñoom waaw. Picasso. Picasso jóge fii Mbour bergerie Ligue Nicolas nekk doomu Calvin Cap di seex si Murid Sadikh Calvin nekk doomu Daktif Daktif di doomu salaam salum Saloum de papam Saloum nekk doomu Mansour Mansour Algor Algor Birahim Birahim Sarr Sine di sa Moussine euh, euh, Magistara Magistara Aïcha Cheikh Diop Ngayta Batlin ba ca Tyson ba waaw xam nga xar yooyu du ñu caaxaan waaw. yow yow tey dañ la xam ci élevage gis la ngay yëngatu ba ne yaay kan ci élevage. man maay doo gaynde man maay du gaynde diaspora bi yëpp xam nañ ma man maay du gaynde borom gaynde maay doo gaynde borom foiru tëngee ca booru nag ba. man yow xar bi naan doo gaynde xar bi xar bi ñuy wax du gaynde man lañ ko tuddee maa ko juddu juddule jox ko sama nit ku baax mu waññeeku ko tuddeewaat ma ko. muy muy Seydou Boppaloo ma koy nuyu di ko siyaar bu baax. bi ma bi ma koy jaay xar bi jumbax bi waddagul amul deux semaine mu ñëw na ma maal bi impressionné na ma defagul résultat mais ossature am fénituwam doy na ma damaa bëgg doomam bu góor ma ne ko jëlal bii. ñu waxtaan déggoo mu ne ma tuddee naa la ko ma ne ko yàlla na si yàlla def barke yàlla na sut turandoom tur te yaakaar naa ne bi muy avant muy def production Sénégal dégg nañ ko macha allah. loolu wax ñu la koy doo ñu may waxee doo gaynde gaynde gi ci arñi bi la ne nekk si jëmm ji jëmm ji bàyyi faale ba pare yëngu ba noppi bi may indi gaynde foiru Tëngéej dafa am yeneen duu yu nekk ci foire bi pour ñu comparer duu yi bu ñu nee duu yor gaynde duu gaynde dañuy xam ne man la. ma joxe waat doomam ñu tuddee waat ma ko du gaynde moo andi duu gaynde bi ba nii. tur bi barke waaw yaa ngi si yàlla dolli gën a dolli barke. mais kontaan nañ si raaxatu kon ñu dem nga wan ma nga nga teg wan ma xarit fi nekk. si añeel yi ak ak nga jox ma numéro bi ak waaw bergerie Siraxatu nekk Mbour Mbaling boo jégee deuxième doodaan bi 20 rek boo tourné sa droite foo woote rek ñu jël si la. numéro bi nekk 77 528 06 60 boo duggee Mbour foo woote foo nekk ñu jël si la. jaajëf du waaw ñoo la gën a békkili fa waaw ñu dugg si añale xool waaw. waaw kii ñi ñëpp ay sëtu Picasso lañ ay sëtu Jamil lañ ay sëtu Picasso lañ ay sëtu Jamil lañ parce que kii doomu ay Picasso la yaayam doomu la ak euh, ak Jamila Jamila nekk doomu teraanga donc moom benn benn doom Picasso bu jigéen lañ jël teg ko si Moussine Junior moom moo mooy mooy mooy production bi non ay añal lañ tëbooguñ ay añal lañ waaw benn tëbooguñ si waaw kii tam même chose parce que ay añal lañ euh, neuf dix mois onze mois huit mois moom doomu Jamil la doomu Jamil la yaay ji doomu Caakaaba Jamil doomu Samba Lawbe yaayam doomu Teranga la waaw moom mu nekk añ waaw añal rek ñoo fi nekk waaw jàppal boobu xëcc wa ki tam añal recrutement bu bu bu doy war bu muccu ayib suñu ben pa bu baax jox ñuko muy paa ñukoy remercier nak diko profito diko di ko nuyuwaale bu baax moo ñu jox ki pour ñu si fan yi lañ ko duggal dal juddule wuñ ko juddule wuñ ko wa set set la ci wa bu malikunda set la ci mourid Sadikh nek añal bu doy war machallah ok. wa ki tam nek doomu Jamila Jamila nek doomu Teranga ak Mixta nek set Ferdinand moom it euh, Moussine Junior a ko jur Moussine Junior nekk sët si ca Yacine nekk doom si Moussine nekk sët si May sera mooy mu nekk añal bu doy waar bu mucc ayib macha allah. itam nekk doomu waaw kii doomu Jamil la Jamil nekk doomu Samba Lawbe Samba be toi rek toi rek May sera moom it euh, yaayam nekk doomu Picasso di sët si Calvin Cap di sët si Dactif di sët si salaam di sët si Saloum Saloum. waaw box añeel yi moo nekk noonu. dugg ci box bi nga xam ne peut-être fii dafa naa ne ay grand femme la fi nekk wala ay noo koy expliqué noir bi ñu ak euh, ci fano bu bi waaw kii mooy Eben fii ay femelle deux portées rek ñoo fi nekk mën naa ne espoir lañ yoo xam ne ñu ngi doog a foog. am na si yoo xam ne sax xam naa ne peut-être ñu ngi garder seen seen deux ans espoir ba léegi. Mhm. mu nekk doom si Picasso. nekk sët ci Calvin Cap salaam Dactif nekk sët ci Saalum Saalum ba pare yaay parce que moom yaay doomu Saalum la. waaw doomu Saalum Saalum bu jigéen bu doy waar lañ jël teg ko si Picasso mu génne lii mu nekk mu nekk Saalum fixé waaw. Euh, euh, bëgg naa xam yéen seen xeetu femelle nan ngeen koy euh, sélectionné seen base de waa Siraxatu. waaw ñun waa Siraxatu dañuy liggéey ci jeune parce que dafa am solo. Hmm. parce que xar yi du lu ñuy tâtonné. xar yi parce que buñ ko amélioré ba mu agsi fii. donc xam li ngay def maîtriser ko. mooy eggale fii élevage. parce que xar bu si nekk dafa am lu muy am. moromam manqué ko moromam am lu mu am mu manqué ko léegi élevage dafa dépassé tâtonnement li ngay def da koy xam mën ko maîtriser ko liir ko xam xar bu nekk lan mooy fooram ak lan la manqué ak euh, lan lañ war a dolli ci moom donc ñu dolli ko ci moom liggéey bi avancé am keneen ku ku ku kuy xaar koo xam ne am na leen lu mu war a liggéey ci moom bu ñëwee dollee ko rek bu ko defee résultat feeñ parce que travail continuité la wa ki moy Aïssa Picasso ki mom berger bi man dama moy sama xar moy sama xar parce que yaayam dom teranga la teranga forman galawar siberu mo am fum bok ba pare yaayam nek femelle bu doy war bu muccu ay ñu jël ko tek ko ci Picasso mu jur ki ok mu nek salum salum ak teranga mu ngi ci deuxième portem mu ngi ci deuxième portem wala boule. wër xam nga foire ren foire innovation la. foire innovation la euh, siraaxatu ñu nek bergerie bu mag. mal, bu une yu nek jaar loxo. ñu bu doy donc nous euh, jaaduna tay ñu indi exposition. Tay indi avons indi indi teranga Jamila ak ay Nous indi euh, Picasso ay do ay Picasso ak ay Picasso. parce que andiwuñu maal andiwuñu maal parce que foire bi dafa am fu ñu ko teg soxla ci exposition bu set boo xam ne laajul perturbation laajul exposition boo xam ne da ngay day perturber peut-être maal yi di déconner wala dañu bëgg a xari tranquille ñëpp nekk ay femelles ñu tranquille nekk exposition bu set nekk ay qualité yu mucc ayib loolu lañ ci jublu moo tax tey boo gisee ñu andi lee andi wuñu maal bëgguñu sax lu yàq suñu exposition waaw. waaw kii mooy Jamila doomu ak Mixta yaa ji nekk doomu Ferdinand. mo nek nii ci bass waaw waaw di setu si def ci ma sha allah. waaw mu ci si quatrième portem mu ci si quatrième portem waaw defe na mu ci si quatrième portem suma ma wa ki kii adja ki ne ñu tuddé ko sama sama ben mère di sunu yaay di yaay ci mam Cheikh djey demu ñëw na fi ma sha allah moko andil collier bi ñu koy laaj sama passage di ko nuyu waale bu baax moo ko indil trondoom bi quoi démb takkal ko collier bu rafet bi macha allah ñu tuddee ko Adja Kiné di yaay ci maam Cheikh macha waaw mu nekk doom Picasso yaay ji nekk doom Moussine Moussine nekk doom sara donc mu nekk mooy femelle bu mucc ayib bu rafet macha allah di ñaan suñu borom taw tawféex bu baax a baax a baax